kuddoo ñeme gar wala bu ñaay nag bu nee bu nee kuddoo ñeme gar mu ngi léeb mooy nit daal moo mën a ñeme yàlla da nekk sàcc bu rëy nga ne diw mais mooy sàcc bi pour sa sa sa der maa ngi nuyu suma ko wan kii laa ñoo bokk benn bokk yaakaar ak su coalition GACLR nga xam ne Pape Bodi bi ci la bokk kontaan naa ci seen ñëw combat bi ñuy mën a léegi nii c'est un combat patriotique ndax benn dof bu jóg pour taal Sénégal koo xam ne amul lu muy bañ amul lu muy rus duñ ko bàyyi muy taal Sénégal ndax xoxatal nit ñi ba ñëpp nekk ay ragal fii nag dëkk la joor Ngoné Latyr la kenn doonul affaire tapet alors ma dégg groupe boobu nga xam ne ñoo ñoo rey nit ñi ñoo ne woon Sonko moo ko jiite ak Guy Marius Sagna Sonko moo ni man dañ maa bëgg a yóbbu gendarmerie te bu ñu ma yóbboo dañ may tëj procureur joxe na mandat dépôt foo ma sa gisee gendarmerie enquête ko ñu am mandat dépôt parce que dafa teg ni ñu dof kon wàcc leen ci mbedd mi rayante mortel combat na leen jaral seen bakkan may wax de Macky Sall dina gis lu mësul gis ci ëllëg sa ñu commencé taal dëkk bi affaire bi neex leen nag ñu ko taal rek nga yàq au champ yëpp ñu wër di taal di sàcc station Total bi romb toj ko yàqu kër Birima Ndiaye TFM comme Birima li muy wax neexul Sonko dafa war a noppi ñu dem taal ko kër El Hadj Diouf comme li muy wax ndax Adji Sarr kay war koo défendre moom Adji Sarr daal amul doole néew na doole. yaayam dee na bàyyam amul doole dañ koo war a sacrifier ku ko defaan ñu tax sa kër àddina bi ba àddina jeex amul benn avocat boo xam ni mas nañ koo song wala ñu taal këram àddina bi la ba mu jeex tàkk tàkk ndax dafa jël dossier boo xam ni contre benn nit la waaye comme jël naa dossier bi contre Sonko man nañ maa war a rey ndax saaga yëngalu ma du teree costume du ma teree karawaatu du ma teree sol basin yu rafet xeeñ lu neex saaga yi du ma takk fenn lépp ay xeeñ parfois mu neex kon saaga yi fa la may xeeñ fa gisuma ko ay dof rek ñoo may saaga fii naa leen koo xam ni sa kër yaay la sa yaay liggéeyam mooy boo demee ma màgg war koo yor yor sa bopp nga ne déedéet man saaga la mooy sama profession ban yaay moo bëgg doom joo xam ni yéen ñoo ñu bind ma saaga yéen laay waxal xanaa yéen ngi saaga rek seen ndey li mu leen li mu leen liggéeyal yéen nekku leen Sonko inspecteur des impôts jàng na nekku leen El Hadji Diouf avocat international nekku leen Macky Sall ingénieur géologue nekkuloo Pape Boni Sow journaliste nekkuloo Ely Jean Malo professeur mathématicien physicien polytechnicien mon premier adjoint nekkuloo kenn lu may saagakat nga ban ndey moo bëgg yéen ñooñu laay waxal ban yaay rek moo bëgg doomam wala mu liggéey tekki muy liggéey ci saaga ngir sonko nay sonko liggéey ba am sonko yéen seen day liggéey ba am leen ngeen ay saagkat kese yéen sax intéressé wu leen ndax la ngeen du ma ko déglu mais dama bëggoon ngeen jéem am jom am dignité am personnalité Sonko gënu leen wala wala yéen ni ko waxee rek yéen loolu la ngeen mérité Sonko gënu leen dem leen liggéey mën ngeen politique mën ngeen xeex mais xeex bu normal waaye saaga arme non la yàq deru nit sosal ko lu ne nga ndax lu neex nit yàlla di la seetaan ngay wax yooyu yàlla jéppi na la sib na la yéen xale yooyu di saaga ba may di ñaan Sonko rek Sonko rek yàlla rek kay mu am solo yàlla fi nekk Sonko day dee benn bis fu jëm ko day feebar hospitalisé fu ngeen jëm bu biiram di daw fu ngeen jëm <laughs> Sonko rek Sonko rek bu biir bi daw fu ngeen jëm du nit simple ngeen Sonko rek bu dee fu ngeen jëm du dee c'est un mortel ñàkk fayda mais dama bëgg ni ku am fula am fayda topp réseaux sociaux yi Sonko soo vous nous emmerdez vous nous tympanisez vous n'avez aucune valeur dans ce pays là ñàkk jom may ñu ne comme léegi ku mel ne El Hadj Diouf Birima Ndiaye mënuñu ko noppiloo dañ dem lakk seen kër am yëfi bu baax doole yëfi jaam yéen loolu moo leen dese léegi ndax seen waajur neen dem dem taal TFM taal El Hadj ndax maa ko jaaxal way soog rek xanaa laaj ñu boog tere nalaw nalaw avocat ci àddina bi yëpp boo xam ne moom kenn lañu masal taal këram ndax jël la dossier contre benn nit avocat dossier bu ko neex bu jël avocat moom lu ko neex ba mu ko rey nit mën na la défendre mais El Hadj Diouf amul droit demande aji saa kan la seqal Sonko donc dañu ko war a rendi waaw kii bu jëlee nguur ji hey yàlla baax kii du ma sa jël nguur koo xam ne jëlee koo nguur ku la wax lu dul noonu ñu saaga ko bu saaga yi doon ñëw bëgg koo rey dem këram pour rey ko TFM comme dafay équilibré am na télé yoo xam ne fii la ñu faraande carrément ñu ne TFM góor gi la àndal ci boo demee jàkkaarloo li ñuy yàq Macky Sall à part Birima ñëpp day contre Macky Sall waa kër yu si ñoo gën a contre Macky Sall bu ma tudd anti Macky Sall Charles anti Macky Sall Pape Djibril Fall anti Macky Sall kon TFM nu ne nu nekkee TFM boo xam ne pour ma weddi ndax kenn taxaw fi weddi ma Pape Djibril Fall lu ko wax ba géex bu ma tudd wax a wax a wax di nga dara taxawu ci ba géex da ragal Sonko ba bëgg a dee depuis mu ne dama leen rey dama leen rey dama leen rey leen dama leen rey leen jour élection yi mu ne booy dama leen rey waa TFM ki xam nga yàgg naa bëgg reyee nit fekk avant ne woon na on doit fusiller tous les chefs d'état qui se sont succédé de de Abdou Diouf à Macky Sall Abdoulaye Wade Abdou Diouf ak Macky Sall yow rey soo ko kii par de xamoo yéen du ngeen ci bàyyi import du ngeen ci attention waa ji rey rek bokk arab Ousama Ben Laden bi soo ko gën a gaaw soo ko gën a garaaw Ousama Ben Laden ñun mooy suñu Ousama Laden rebelle bi gën a garaaw Sénégal Ousmane Sonko la billahi seetlu leen ma xam rek rey rek président yi nañu rey wax Youssou Ndour yi dem leen mortel combat reyante leen rey rek xale bi rey rek deret rek deret rek na deret ba yàqu dafa jot nag yéen ñëpp préféré wax ngeen dénoncé ko ndax lii raam lii raam fu jëm ci jàkk bi la jëm duñ ko nangu ñoo bañ ñoo lànk reykati nit du yore Sénégal koo xam ne rey rek rey moom yaram wi dérétère bi ci nekk ànd ak benn dox boo xam ni moom prison rek prison rek prison rek tooñ de prison tooñaat te prison Guy Marius Sagna yaram wi dafa dërkis ci prison yaram bu prison la yore day day xasal prison bu toogee te jàppuñu ko waa ñaar ñooñu bëgg a taal dëkk bi naan intérêt France yi dal leen ci Auchan dal leen ci Total Guy Marius Sagna la rey président yi rey leen nit ñi reyante leen kan la Sonko la ñaari vague bi yow ñëw mooy ëppati ñu dee te maa koy jiite kon koy rey nit ñi ku wax feeñ di li amoon ñëpp di ko di ko tawat mu ne bii di ñëw buñ deful li ma bëgg <laughs> buñ deful li ma bëgg <laughs> yooyu la elle sera plus dévastatrice kon da ngeen gis lu ngeen mësul gis quatorze morts trop treize morts xaw ma quatorze ngeen bëri na déedéet kay man Ousmane Sonko li ma neex bu ñu ko deful sama bëgg-bëgg bu ko Macky Sall deful ay junni junni man man lu mag bi mun la man mi ni keroog te waa Casamance teg leen armée yi suuf yow ku bokkul ci dara doo seen chef noonu mën joxe ordre bu ci teg fetali ci suuf ngàndaay kon kay ngànnaay yi moo ko yor mooy chef borom ngànnaay yi ku wax ku wax feeñ de wax dafa garaaw de bal bi tàkk la ku ko fayoon tey milliard du du ma la deuxième vague sera plus dévastatrice réccu na ko ko trop beneen bi réccu na ni teg leen ngànnaay ci suuf yéen waa MFDC waaye kon moom moo jiite MFDC nekk nekk daal sa waay moo jiite MFDC kay nekk rébellion Casamance moo ko jiite li yëpp taxoon bi ñu koy assemblée ci affaire Mamour Diallo bi quatre-vingt-quatorze milliards yi ne waa ji waxul dëgg dëgg Sénégalais yi dem toog Casamance daw demul assemblée moom joxul benn cër assemblée ma jàppee Casamance dina ma défendre kon yow ah, yow la nga ne yow kon da ngaa bëgg a Sénégal xar may féliciter Jean François Marie Biagui ancien secrétaire général du MFDC mu ne moom il est mu ne je suis Mamour Diallo le lendemain loolu bind ah, benn article je suis Mamour Diallo pour dire que moom il républicain alors que sooko dafa bëgg xel Sénégal ñaar koo xam ne mu ngi am FDC mu ne moom Sénégal la bëgg mais ne la Sonko mu ne mu ne moom sib na Sonko bi nga xam ne daa bëgg jël Casamance mu dal ci kaw li des ci Sénégal ba ni Casamance bokkul ci Sénégal Sonko mooy musiba moo tax Sénégal yi ubbi leen seen bopp yi eh, waaye yàlla du juum amoon na 15 pour cent mu des rek 85 pour cent amoo ko nga bëgg moom réew mi bëgg a noon nit ñi bëgg taal dëkk bi yow ba amoon 50 pour cent fu jëm yàlla du juum de kon may terminer pour wax leen ni ñii ne dañuy def benn mémorandum pour yóbbu Macky Sall prison CPI tëj ko moo gouvernement am ndax dañoo rey ay nit may yëgal Sénégalais yi ne man bëgg naa ànd ak waa Auchan may lancé un appel waa waa Total Birima Ndiaye famille Mansour Faye Saint-Louis waa TFM waa RFM ñu taal seen oto yi ak ñi ñi deele te ñu tax seen doom yi dee ba max leen ci alkaati yi gendarme yi ñu sonk brigade Vélingara brigade Bignona sonk seen Samba Diéry Diallo loolu yëpp Sonko la ak Guy Marius Sagna ñooñu nag kan lañ yàpp ak seen porte-parole boobu du ma tudd tëram moom ba li mu dem liggéey de Sonko lu may wax ci seen tur te li muy wax da sax te pourtant borom xam-xam la de mais boo bëggee nguur façon bu nekk di ko ko wutee foo ne waa ji day jël nguur gi tànk di ko tarbi yi di ko fanal di ko sosal yàlla jëppite la suñu borom jëppite la ñoom nag dañoo tàmm dama dama leen yóbbu CPI ñu jàppaleen ñoom ñëpp yóbbu yóbbu tëj leen muy sogg ak gaay bi mooy sàcc buy yuuxu sàccoo mais soo kenn la yab M2D ku ngeen yab yéen mais yéen waa M2D yéen yéen yëgoo ngeen neewoon nañ d'accord ñu am ni Karim Wade Khalifa Sall maa ngi ci profité di jaale Khalifa Sall le grand député maire de Dakar yaay moo fi jógee wàññeeku ndax tey jii ko war a denc yal na yàlla xale àjjana ñu jaale Khalifa suñu la nit ku nit ku nit ku réglé la vraiment nit ku baax la du cëppi cëppi affaire bi du doole pour moom affaire affaire xel la affaire bi ci bopp bi la par contre am na nag ñoo xam ne cëppi cëppi rek ak dóor mbëkk foo ne noonu lañu def pour napp Sénégal yi jël Sénégal non loolu yëpp xale la quoi yëpp daf la ma ne loo xam ne dafa leen rëcc yu bëri ci yéen M2D bi Ousmane Sonko génnee dañ def conférence de presse ñu ne d'accord uñ ci amnistie le M2D s'oppose à l'amnistie de Karim Wade et de Khalifa Sall ils doivent des milliards ils doivent payer tey jii M2D ñooñu ñu ci M2D yéen xanaa yéen wa yéen waa kër Khalifa yi j'interpelle Barthélémy Dias yéen waa kër Abdoulaye Wade j'interpelle Mame Diarra Fam ñoom ñaar laa gis ñu gën a défendre Sonko fu toll seen leader yi M2D bi ngeen bokk bande bi ñoo na permanence Ousmane Sonko la ñu waxee ni ci ëllëg sa ginnaaw li sa ba Ousmane Sonko génne prison que d'accord ci amnistie mooy ñu bàyyi complètement Khalifa ak Karim pour ñu mën a bokk ci élection yi ñun d' accord ci lu tax d' accord ci pour que moom kenn rek Ousmane Sonko mu nangu li Karim am nangu li Khalifa am noonu defoon pour am 15 pour cent ndax mu yaakaar ne mën na jël Sénégal ëllëg gars yeewu leen waay yeewu leen kon nag li ñu bëggoon a wax mooy yabeel gi daa ëpp ñëw taxaw def sa njaaxum ba pare. ko ku tollu sëñ Muntaxa Mbàkke xalif général des mourides yàlla dafa yàgg te wér sëñ Muntaxa jàlloo ak yow jàlloo naa ñu bëri ci àddina bi ñu koy seeti par jour nekkul ba kenn ñëw fa mu ne ko rey benn bakkan rek dem safara que wutin mu ne ko non xam nga affaire bi dafa amoon affaire xalifa affaire moo tax kon moo tax ñu rey quoi mu ne ko déet politique ak prison ñoo ànd sëriñ may wax de sëriñ bi di leçon ñu ko nag loolu politique nga may wax man waxuma la politique man wutin bi laa la wutin bi wut nguur jarul bakkan bakkan moo gën a foor nguur yëpp ndax yàlla moo koy joxe da yéen du ngeen yàlla loo mënul joxe a koo faat waroo ko yàq sëriñ bi fa lay waxee moom loo mënul defar nit yow boo amee mille milliards de dollars mënoo defar nit yàlla rek subhaanahu wa taala kun fa yàqu wan sëriñ bi wan ko ni ko xam ko wax da nga fa ko war a waxee kan ko war a wax kan ko war a waxal nan ko war a waxee macha allah sëriñ bi wax na ko fa ko war a waxee wax ki war a waxal ne na ko wutal wii sama sëriñ bu baax bi wutal wii sëriñ bi wax sëriñ bi ne wutal wii wut nguur sëriñ bi wax de jarul bakkan benn bakkan waaye nag ñoom ay rey kese nit lañ nañ rey Abdoulaye Wade dañ waxoon nañ rey Abdou Diouf nañ moo baax anti système l' anti système dàq sàcc suuf soo ko xam ngeen sàcc xëy la nee naa ko dama yóbbu tribunal ma génne preuve bi Sonko du li muy def ci ci lu bon ma koo def dettali ci wutam xaalis am na benn journaliste bu ñeme yàlla nee na joxoon nañ ko cent millions mu delloo ko benn waaye bu ko wa dëgg yéen manipulateurs yow dina wax rek ngeen di gëm loolu ay nit cest à li muy def takk ay loxoom ci ginnaaw nañ koo mënatee kii mbari saa yi xotti yéreem bi mu dañ koo dóor kenn dóoru ko xëpp dañ ko suuf rek waaye kenn dóoru ko waaye loolu la mérite nag bu bàyyiwul fu nekk mu dem fa tànk bu toogul dina dëgg day tànk bu toogul olof ñaa neen dëgg day moo tax dañ koy yar da ciy baax léeg-léeg yow yow yow yow comme jumbo lu nga xam nga yàlla jumbo jumbo jumbo saaña yow mel ni ku tey de xam ngeen wérul koo xam ne prison da nga abonné prison ci sa yaram day sa prison kooku nag ñëw di bëgg a taal dëkk bi moom bëggul jàmm Auchan moo tax mu tàkk Total moo tax mu tàkk dañ ne luy France dafa tëb franc France France CFA dafa tëb lépp dafa tëb beneen dof bi mu àndal buy sonko moom rey rek moom moom yaram yi rey kee prison la xasan kee dee ñaari gën a bon dee ak kaso sénégalais yi ubbi leen seen bët yi CPI préparé teerul ma ñaar ñooñu ndax Sénégal am jàmm Sénégal jàmm la laaj pays de teranga les lions de la teranga ñu bi les lions de la violence gay marché jaraaf bi keroog Thiès violence léegi Sénégal yi violence violence rek tribunal Pikine ñu toj tribunal Diourbel ñu toj yàq rek ak toj ndax lan ndax doomu Sonko yi ñoo judd saaga lañ juddoo judd ci saaga internet lañ ñu baax ñi nekkoon nañ fi bas ñoo saaga waaye koo xam ne nag ah da nga choisir ànd ak koo xam ne moom du ànd ak ñu baax ñu ànd ak équipe bu bon Sonko et compagnie c' est association de malfaiteurs maa ngi leen gërëm di leen laa leen bëggoon a wax Thank you.